spiraling descent sparked the Arab Spring, and radiation levels from Japan's nuclear, nuclear radar fallout are still high almost a year since a tsunami triggered by an earthquake overwhelmed the country's Fukushima nuclear plant. You can also follow that story and other JATES programs live on our website at www.jates.gm. There you can also monitor JATES Radio Live. That brings us to the end of the news. Thanks for joining us. Stay tuned and enjoy a range of interesting programs.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 Have you tried to extend the olive branch to the opposition members who ran against you? Obviously, they, they lost. I don't think I can work with anybody who do not accept the reality or the verdict of the Gambian people. If you don't respect the views of the Gambian people, I will not work with you. The President, His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jame, talks to the BBC's Omaru Fofana in an exclusive interview shortly after the presidential elections of November 2011. This interview

nibida hmm. ya id card sama biometric hmm. id card kutama kutama da jere hmm. wala passport wala eh, voter card wala driver license ni lu ndang la muji banko la sidan kay don card wala ila banko me bota ja passport ino da mala bida jor seje ten pri o oh, kum ayata ba mari na nda fana ni na dimbal be sirgistano nyun ko yow bari ku gele bayar e ko momo mo lu bol registano ne rogo ne rogo adu be momo registala isalonde ni malong ay fengo fenke itele tam adu sid nori jisono mi ma sa ni se si foje na sa ni se so anin ke ba ko tolo be sokono kayde te bulu isi wol be sama merol nin ke bar ngol be adu pana aman jere banan dambi la kana jam ibe dawada itu jibi ne batar lay ibe enter lay ciow nga def nga rek alhamdulilah ngeen laa jógee nii ah waaw te nak seen fi lu fi xew moy sim card registration mboolem dooree ko gamsel line nga amee afisel commune ba kiwsel nga registré soo ko registré am na looy yóbbu de mooy lan da ngaa sa passeport ah mbi de sa ID card ID card bu es bi laa wax de biométrique ID card ah driving license ak sa voters card wala su fekkee doo waa dëkk ba sa alien ID bi wala sa passeport yi waa dëkk ba amul fay amul fay free la free amul dara looy fay moom na waaw su ma caamee waaw ngay wax ni lu am solo la de mhm. ndax man a suma njabooti mun nañu register network bu nekk mun ngaa register juróomi nit te juróomi nit mooy maire yeeg paa ñoo xam ne amuñ kayit mm. wala xale yoo xam ne amuñ eighteen years mun ngeen a register waaye sooy register tamit nga seet koy register de soo register koo xam ne mu ngay jël sim card di fa def dara lu ñaaw yow la ñoo jël si su boobaa nag nga xam ñi ngaa register maire yeeg paa yi amuñ xam ne xale yoo xam ne amuñ eighteen suñu amee eighteen ñu dem register seen boppa The Gambia Revenue Authority, GRA, wishes to inform the general public that the issuance of motor vehicle license is now under the domain of the authority. Individuals, companies, or institutions who need to acquire license for their motor vehicles should contact the following GRA offices during official working hours. Banyul Revenue House, 7879 Liberation Avenue, Kanifing Revenue Office near Gambia Bureau of Statistics, Brusubi Tax Office, Brikama Tax Office, Farafenya Tax Office, Soma Tax Office, Brikamaba Tax Office, and Basse Tax Office. The public is also reminded that a motor vehicle testing certificate from the police, as well as an original copy of insurance certificate are required before one can obtain a vehicle license from GRA. GRA collecting revenue for national development.

am li ma soxla waxtu wi waroon naa fekk xale yi yónnee xaalis bi bu yàgga waaye dara mënut a sotti dara waay waay waay man xaw ma lii mooy lan hello góor gi Thierno Ndiaye day man la maa ngi nii xaalis bu jotee bu jógee bitim réew ah suma doom jël <laughs> Africa Transfers réewi Gambia dama ne xeewal wàcc si na ci biir réew mi di Africa Transfers biri change money transfer ak fu waay mun a ne ci àdduna si soo buggee am lu la noppal ci mbirum yónnee a jot sa xaalis demal Africa Transfers fii la yónnee xaalis sampee mbaax te saa yoo jëflanteeg ñoom ñu betteel la ba neex a neexal yu duuf te am solo ca 56 Kairaba Avenue ku sopp li may def laa tax na ba damay liggéey te duma tala lekk waaye bi may waaj liggéey si suma jabar nee na ma nijaay añ sir tey amal naa la lu neex baax na waaye bi ñu agsee kër ga fekk nañ soxna si ci waañ wa muy ëlbati cin li biñ xamee ne maalo la mer nañ toog ci saal bi di seetaan télé waaye ciy ba ñu xet ba duggee lan lañ taabul bi ci diiru benn minute cey bi añ bi yegg see Xasan jeexal na ñaari palaat Binta lekk ba màtte làmmiñam ba man nag lekk ba caalib loo soxna si maalo bi mooy ban maalo maalo kan amut pënda te amut gom ku ci bëgg xam lu leer wootee 42 76343932 maalo sakkan maalo bigen ci maaloy kon joyti vitis ñu gën koo xamee ci appolo lii nag euh, doomi jàngoro la boo xam ne tamit euh, doon na loo xam ne lu gaaw a wàlle la ni euh, nga xam ne noonu la ñoo ràññeyee lii di feebari but bi mu di apollo doon na loo xam ne ne dafa doon but yu métti Euh, doon but yoo xam ne dafa xonqa di génne ay ndox lii nag ni moo mën a tasaaroo moo di bu fekkee ne nit ki nga xam ne am na ab polo euh, joxante nga ak moom loxo wala boog nga jëfu sarbet boo xam ne jëfoo na ko walla morso yi nga xam ne moom laa fompe bu tami wala boog sax ngeen bokka benn ngegenaay bi nga xam ne moom laa tëdd nga xam ne ndox mi jóge ci butam dina dem ci ngegenaay boobu loolu yépp mooy waral euh, wàllante bi ci apollo Eh, yi nag eh, nga xam ne dinay warali tamit lii di tasaare feebari eh, but bi mu di appulu loolu bokka na ci di béréb boo xam ne nit ña dañ fa bari lool ak it béréb yoo xam ne daal ay ndaje moo fa dee faral di am bu fekkee ne nag fajuñ li nga xam ne moo di appulu bii nii ludut nag di jël ay limon ay xob sukur seben ndoxi xorom ay carosine ak ay saabu di ko def ci suñ biir but yi loolu nag dinay waral feebari apollo bi mu gën a yokk raxas suñ loxo yi ba set raxasit suñ xarxanam yi ba mu set ak ndox mu set dina ñu mun a muccal ci doomi jàngoro bi nga xam ne moo di joxe apollo jokkoo leen ak ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci buntu wér yaram gi ngir ñu mun leen a digal jox leen it faj goo xam ne na leen mun a fànqal feebari apollo fexe leen nag ngeen amee ay xibaar yu wóor ci ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci buntu wér gu yaram gi eh, bañ a déglu rek ay ndigal yoo xam